kilifa diine yi dem nañ seeti lañ ku ci nekk maanaam li suñu doole tolloo ñu maanaam ñu soog ko yow teranga ndax guddi Seydina Muhammad du ma bëgg di wax lan lan nag lan lañ ci def ndax su ma amoon milliard ci kàttanu yàlla dinaa ko def ci guddi Seydina Muhammad rawatina ñii nga xam ne ki nga xam ne tey ñun maanaam mooy suñu buntu mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne moom maanaam moom dafa am lu mu représenté Kaolack maanaam tey fépp foo dem ci àdduna maanaam fii Kaolack yi moo ko yóbbu ci partout dans maanaam dans le monde def ci guddi Seydina Muhammad waaw ñi nga xam ne comme suba inshallah rabbi rabi nañ ay nak donc yo xam dañ koy togg euh, manam pour pèlerin yi jappalé len ci donc nak aduna lolu kessa la ndax euh, euh, boo tanee sa morom na nga koy dimbali té nak kaw la ñu nañ ko war di sago maanaam sago bi lenn la lii bi yeneen dëkk yi ko def ñun tamit dañ ko war a def nga gis ne maanaam chaque gàmm bu jotee maanaam nit ñi dañuy yàkkamte pour ñëw Kaolack ndax aussi tamit àdduna lool la maanaam ñun ñoo war a jàppalante suñu biir dimbalante suñu biir te aussi tamit ñu représenté Kaolack ba nga xam ne Kaolack nit ñi xelu ñaaw yi ñu am pour ci Kaolack mu dëñ donc nag ñun loolu mooy suñu mission ñun te ñun loolu la ñuy xeex Kaolack mission pour Kaolack mooy lenn la mooy que j'ai des projets pour yoo xam ne nii tey ñoom taxaw nañ maanaam pour ñëw jàppale Kaolack donc nag képp ku ma gis que ne lenn moo la tax fooye woo jeunesse bi man lenn lenn mooy sama base mooy ñàkk maanaam képp kuy fooye jeunesse bi dinaa xeex ak yow képp ku jël jeunesse bi maanaam bëgg leen utiliser ci kaw nit ñi dinaa xeex ak yow et tamit képp képp koo xam ne maanaam da yóbbu turu Kaolack bi di ci am dara di wër di maanaam di ci am dara di fen ngir Kaolack kooku tamit dinaa jàmbaloo ak yow man injustice laay xeex ndax man yàlla dimbale na ma politique gu ma ngir am ci nombal tànk politique gu ngir tabax ay kër ngir aussi tamit maanaam lii nga xam ne waa Kaolack moom la ñu dund maanaam ñu maanaam Ndakaaru tudd fa yeneen yeneen gox ñu fay tudd Kaolack parce que ñun amuñu lu dul di wax ne aussi tamit fii opposition mënu fee am dara fii ci Kaolack Ousmane Sonko mënu fee am dara opposition bu fi meeting ñun jeunesse bi nañ ko tas opposition nag laa bu fi meeting wala nga dajaloo barki ndaw nga li la yàlla war wërsëgalee mënoon nga koo defee neneen mun nga koo def comme say morom di ko defee ni say morom te kenn du ci mën dara waaye li am solo lu la yàlla jox bokk nga ko jaami yàlla yi. kon gën a la góorgóorlu ñu ngi lay bàyyi xel bu baax loo nekk ñu ngi ci ak yow ñu ngi lay sant baax di la gërëm sëriñ bi ne lii dafa rafet li rafet mooy murit bi daa war a jëfal tiijaan bi tiijaan bi daa war a jëfal murit bi. te nun talibe yi rawati na nun Baay fali yi fu nu dem lanu war moy nangu ko rek set yi xale yi sol ne lum rafet lula ci kalamu yàlla ak yent bi seigne touba la koy sedel talibe yëpp li moo nu waroon nee na boo gisee mu daan dem Medina diko ko bale ji bëgg a ñëpp na len rek la kon jërul xecio ño bok charte l'islam ño bok ponk l'islam yàlla suñ borom sàmm barkel la ci kattan ak ak yërmandeem nee na bu yàlla bu sa noon ree barke Cheikh Mamadou Mountakha. papi encore une fois maa ngi kontaan maa ngi kontaan maa ngi lay ñaanal ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim yàlla yàlla rombale la fii ngay ut ak li ngay xalaat yal na la ko yàlla defal ci zahir ak ci baatin ci barke Cheikhu Tidiane maa ngi gërëm sama mbokk murid yi fi ñëw di gërëm sama mbokk xaadir yeeg laay yeeg ñëpp ñu fi ñëw kon nu mu ko waxee noonu rek la gis nga ku dingat mam maam Cheikh Ahmedou ba yow yaay perte ku dingat maam Haaj Malick yow yaay perte parce que ñoom bàyyi nañ fi ay waxande yoo xam ni da ngay ñëw tibb di def sa poche ñoom liggéey nañ li ñuy liggéeyal yàlla ba yàlla wan la ko yow nga gis ko soo yuuxoo dafa tax mu mu yàqu yow yaay torox waaye soo ci ñëwee topp ci gis na lii magasin yi am la nga tibb ci bambaax def sa poche yaa ciy jëriñu ci yëngatoom nag ñun ndaw Kaolack ñun ñoo war a am fulla am fayda dañoo war a am fulla am fayda fulla ak fayda gi du question rek ñun ñuy taxaw di gis ñeneen dañuy xool suñu doom yi fi nekk tey yëngatu màggeeg yéen xam coono Kaolack xam méttaatu Kaolack nan la mel ñu ànd ak ñoom démbale leen dooleel leen. maa ngi nuyu suma gan ñu tedd ñi toog ak man fii ci salle bi di ci jël Papis ngay mi nga xam ne moo waral jotaay bi moo ko jiite di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla jàppale la foo jublu foo jublu na fekk yàlla na fekk yàlla jiital fa nam namam ak bëgg-bëggam ba nga xam ne loo bëgg rek man ci jot yàlla mën na loolu yàlla la ko defal yàlla la yàlla yëkkati te aaral la boppam teel la boppam wattul la boppam jox sa bëgg-bëgg yëpp ak say càkkutéef wattu la wattu mboolem ñi and ak yow te jox leen barki barki bi nga xamne te mom lañ yaakar ci fan yi muy fan yi gi nga xamne ci la yonent bi juddoon barki bobu ñu ngi yaakar yalla jox leen ci cër bu law jox ko mboolem ñi and ak yow nak xam nañ ne seen lu baax yëpp mu ngi jëm ci ni ñu baax ñi jëm ci jëm ci luy dimbale ni ñu baax ñi nek ci réew mi leen yalla yalla and ak yeen waaw ah, jërëjëf